léegi maa ngi wax ci Kouthia alors Kouthia barki démb itam sargal bi toj na Sénégal loolu mooy wane ni euh, dëgg-dëgg ndaanaan gi mu doon kenn dootu ko werante li ma ne euh, keroog euh, ci sama discours ba rek ni ñun sax ñu ngi xëccoo audience ni ñun la ñuy seetaan ak seetaan ñu mais moom bu 6 heures jotee ay nawle teleem dañuy bëgg a couper seen émetteur parce que voilà donc loolu mooy wane sac gi nga xam ni Sénégal sagal nañ ko Kouthia waaye Kouthia itam moo njëkk sagal parce que liggéeyam daf ci rey boppam am nañu chance gis naka lay liggéeyee bureau boo fa duggee day rey boppam peut-être ñun. Euh, souvent préparé euh, de façon très mais moom euh, dëgg-dëgg bu ñu fàttalikoo euh, bi mu dalee di bégal sénégalais yi boobu am na ci ñoo xam ne juddu am na ci ñoo xam ne dañu nekk ay xale di ko seetaan par exemple souvenir regardez image bi yàgg na boobu tàng defe naa RTS sax mu ngi nekkoon 58 boulevard de la République jamonoy ORTS boobu tàng daal li la doon woy on vous montre juste un extrait de document bi nga xam ni moom la ñu préparé ba tegoon ko keroog théâtre Sorano ngeen gën a mun a xam ni Kouthia véritable phénomène la regardez. les fans de l'émission de Khalil Gueye intitulée Boulevard étaient aussi habitués à son visage le natif de Dakar a également travaillé dans le groupe Walfadjri de Sidi Lamine Niass d'abord à la radio puis à la télé là également il n'avait cessé d'innover comme nu ko nu ko waxee le phénomène de l'année Gouthia mooy ki xam ni quatorze millions sénégalais yëpp ku ci nekk sa télévision daa seetaan Gouthia di ko sëriñ ma sëriñ Mbaye Mansour waxee phénomène de l'année man jéggi naa foofu phénomène du Sénégal ndax ku caa ku am coono wala naqar bu wàccee dix-huit heures ku caa nga yàkkamte jàllool ba mu wàcce sa coono ak sa naqar ak sa stress. en dehors de nekk phénomène man dama considéré que régulateur social parce que à travers imitation yi ñu def si nit ñi dafay jël souvent actualité mais aussi day véhiculer un message yoo xam ne euh, au-delà du rire mais dafay wane benn message bu important euh, pour la société. ku am talent la. Euh, man di ma gën a impressionné c'est que dafa mën a imiter mën a woy mën a fecc donc registre am euh, ci wàllu comédie euh, dafa varié. liggéey bi ñu liggéey dafa metti talent bi ñu yore c'est incommensurable homme de culture la homme d'art la homme de théâtre la parce que Kouthia ñu bëgg ko ñu bañ ko nekk na te ji quelqu'un boo xam ne bokk ci paysage national. Kouthia. ñu ma doon gis buy def émission ci studio ak Kouthia bi nga xam ne moom ngay gis bu nekkee ci biti ñaari nit la donc mooy wone ne il savait faire la différence entre Kouthia le comédien et Kouthia l'homme simple. c'est un grand comédien boo xam ne nag bàyyiwul kenn man mi man mii di wax ci moom sax bàyyiwuma ndax gis naa léeg-léeg mu jokkaas ma. mais loolu yëpp maanaam ça fait plaisir parce que réew mi moo soxla ñu mel ni Kouthia. ay la yéwén kenn la ci société sénégalaise koo xam ne mu ngi jàppale askan wi ci bu laajee mu banaliser euh, benn yëf mu ñu banaliser ko bu laajee ñu prêter ci attention ñu prêter ci attention je pense que euh, nit koo xamante ni kii euh, mën naa wax sax ne écrivain vivant la. Euh, nekk na aussi un grand artiste mën nañu wax phénomène c'est euh, ci xalaatam ci surtout dayoom am na jamono yoo xam ne dama yónnee woon si moom wax ni que soo toogee ñaari weer yoo xam ne waxuloo dara si man danaa la recevoir weer ba sa ba rek ma taal émission bi rek gis nit ñi gis si man ma ni kii daal mënuma bàyyi wax naa ko ba tey ne Kouthia noppal ma tuuti soo ma noppalee tuuti sax dootuma mer waaye dafa mel ni bés bu ma ko waxee ni que noppal ma bés boobu lay gën sawar pour tudd ma. ñoom moom tamit dañu war a ut keneen koo xam da koy toppandoo parce que Kouthia moom bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn kenn kenn kenn la bàyyiwul mais nag nit la koo xam ne aussi vrai comédien la. ñëpp la amal jàmm nit ku yaatu la nit ku baax la. di am mbégte di am contentement bu rëy. am mbégte ci gis ko mu sol yenn say grand mu bu rafet ak tubéy ju xonq jar yenn saay nga gis ko mu sol costume bu rafet nga yaakaar ne assemblée nationale la jël yenn saay nga gis ko mu tëkkagul ko lu rëy ci létt yu mag yooyu nga yaakaar ne jéeg yi gën a mag ci Sénégal ci la bokk. kooku mooy Kouthia. sénégalais yu bëri dañu jàpp ne maag Kouthia nous sommes famille te Kouthia gisuma man tamit gisuma ko man nag damaa bëggoon a xam à travers fan ndax dafa am ku may toog wala ku ma xam ku tax li muy wax daanaka dafay xaw a méngoo ak samay jukk muy bañ gaynde waalo gi loolu daf koy wax bu ko defee man damay jaaxle. Kouthia artiste la li muy def art la c'est du grand art Kouthia moom la journaliste yëpp Sénégal ndax Kouthia actualité bi lay dugal dinañ ko war a wax fikir ko. Sénégal en général booy def théâtre wala ngay def aar wala comédie dañuy defe ni rek yëfu caaxaan la te tey jii art ak culture dañu nekk ay vecteurs de développement économique te état bi aussi war leen gën a mën a jàppale eh, pour que lépp lu bëgg ci développement art ñu yàlla mën ko mottali ci seen diggante digganteeg Sénégalais yi ak seen digganteeg seen profession. bi muy wax la bateau de Talla Paar Mously Cosset boobu amoon na lu xewoon. sama digg ak sama càmmiñ mais de ce fait que Kouthia génn euh, wax le bateau de Talla Paar Costé euh, les femmes de son parti d'accord et euh, euh, kilifa yooyu yëpp gis ngeen ni ku ci nekk reconnaître nga euh, talent wu Kouthia Adja Mously Diakhaté nga xam ni bu ñu demee ba xam le bateau de le bateau de de Wade Paar Mously Costé yooyu yëpp Kouthia tax ñu bàyyi ci xel ah Adja Mously Diakhaté ñu ngi koy nuyu bu baax mbaakol mbaakol bi su suñu yaay la suñu xarit la suñu jigéen la moom itam di jàmbaar ci arène politique bi gis ngeen itam Adja Wore Sarr mu Serigne fàllu Adja Wore Sarr mu baax mi moom tamit à chaque fois Kouthia di ko tooñ def tàggalam mbubbam euh, da ngay kontaan et puis dafay reprendre euh, euh, carrément jikko nit ki ah hmm. xam nga war a saar sama yaay la ku ne xam ne dafa pànk elle se hmm. laisse pas faire ah, bu dee wax Mously Diakhaté am na bis boo xamante ni def na dicté Mously Diakhaté parce que Mously hmm, Diakhaté ku ne xam na ni ndaanaan la bu la bindalee rek nga kontaan ak comment elle parle français yooyu yëpp daf ñu neex Mimi Touré 2014 bokk na ci personnalité yi nga xamante ni ñoo gën a attirer attention wu ni ko Kouthia di ñëw na théâtre Sorano euh, gis nañ ci itam sama euh, papa Mansour Mbaye historien bu mag bi nga xam ne moom la ñu tuddee gardien du temple ca dëgg-dëgg euh, bokk na ci personnalité yi Kouthia njëkk a toppandoo ah loolu ça fera plus de vingt ans loolu mooy wone ni ndaanaan la bu la toppandoolee Alaaji Madické Niang bañ la barki Serigne Saliou xam nga dafay mel ni ma Madické mooy wax maître El Hadj bu ko Kouthia dee def da ngay da ngay bàyyi àddina xam nga tubaab bi sax bu ñu bëggee def yooyu dañoo dem créer seen ay guignol euh, waaye ñun euh, Kouthia la ñu am te ndaanaan gi mu doon euh, ma waxaat waxaat leen ni kenn dootu koy werante donc ñu ngi nuyu tey gërëm autorités yi ñëw samedi Sorano ñëpp muy président Youssou Ndour keroog dafa ree ba tekk ay weeram ku ci mel ni suñu xarit di Cheikh Amar alors Cheikh Amar ak délégation am keroog tot nañu théâtre Sorano Kouthia bu dee toppandoo Mbaye Dieye Faye bay màcc ay tuñam xam nga Mbaye Dieye particularité a jamais gis nga ko noonu la ko Kouthia di euh, toppandoowee te mbay Dieye itam signé na euh, dégg ngeen li nga xamee ni wax na ko 6 heures bu jotee ci télévision ku ne day bëgg def ni moom ñii toppandoo nañu Kouthia ñi jéem nañoo def li muy def mais ba tey antuwul euh, defuñu exactement comme moom donc yooyu yëpp ñu ngi ko koy féliciter on l'encourage encore et ñu ngi demander plus ci 2015 bi Kouthia ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Pape Cheikh maa leen di fay yéen ñëpp. El Hadj kontaan nañu félicitation ana grand boubou bi nga soloon keroog. dama ko yóbbu euh, ci benn euh, société d' pour ñu assurer ko. <laughs> lu tax lu tax grand boubou bi ko parce que man dama ko bëggoon yóbbu ci Pierre pour mu fóotal ma ko. non dama leen waxoon lu ci wadd ñoo ñu ne ma ñoom ñoo koy jël en charge donc bi <laughs> nekk yóbbu nga ko ci benn société d' assurance la ko ba tey ne loolu garaawul mais keroog dama gis ni danga def show ba ñax te man comme dama la bëgg lool bëgguma dara di la déranger mu bëggoon récupérer grand boubou bi tey pour yóbbu ko ci pressing bi nekk sama ginnaaw kër ah xanaa tuba bi waaye grand moom mënut a dem. ayca <laughs> Kouthia ñu ngi lay féliciter est-ce que mën nga ñu wax li nga dund li nga yëg keroog ndax defe naa Sénégal yëpp a jóg maa ngi koy expliquer ne ba buntu Dakar Tëngéej daa amoon embouteillage ba théâtre Sorano parce que Sénégal yëpp bëggoon fekkee sargal bi am na ci ñoo xamante ni sax nee nañu euh, li ñu bëggoon mooy ñu defar leen ko guddi gi parce que bëccëg bi noonu dafa metti woon mais te néanmoins Sénégal yëpp a ñëw yow lan nga yëg boobu ba tey ci sa diggante ak sénégalais yi. li ma yëg sama diggante ak sénégalais yi mooy Pape Cheikh yéen waa plateau yeewu leen ñëpp maa ngi leen di gërëm. ndax initiative bi. wax dëgg yàlla ci yéen la jugee. rawatina yow mi nga xam ne yaa ne ñun de Kouthia def nañ ko suñu homme de l'année. à travers zapping yi nga xam ne mu ngi ci biir émission yeewu leen. zapping yi ci biir yeewu leen. Hmm. dafa participer ci li nga xam ne moom moo gën a jox visibilité visibilité Kouthia ci biir Euh, TFM. Mhm. à travers l' émission yeewu leen. à travers ta voix nga xam ne da nga ko wax lundi mardi ba ca boppam. Mhm. affaire ba na tëll génn mu nekk loo xam ne. ba nga koy wax ñoom ñeete bi ña ngi koy xalaat mais si sa làmmiñ bu barke yàlla daa day def loolu antu kon équipe bi yëpp ñu toog foofu ñëpp maa ngi leen di gërëm dans un premier temps chapeau à groupe yeewu leen. Mhm. buñ ci nag euh, Pape Cheikh. waaw làmmiñ bu barke bi ma doon wax noonu. waaw bu ko yàlla mayee doomu aadama nit mënu koo dindi. suñu papa Mansour Mbaye ba nga waxee ba pare suñu papa Mansour Mbaye nga xam ne gëj koo dégg ci publicité boo xam ne day jëm ci Mumbaay mhm. saa ñu déggee baatam ci woote gàmmu la war a woote màggal war a woote ab daje boo xam ne ci daayira war a ci yoonu tarixa la mhm. bu demee bay wootee mhm. pour ñu ñëpp fekk Sorano kon kër gu mu jox élage bu bilaal la ak borom kër gi ak li nga xam ne moom liggéey bi ñuy def ma koy félicité ci wootem boobu ndax wootem kenn du waa Télé Futurs Médias nga xam ne tey nee naa leen. Mhm. ñun euh, dañu nekk ay producteur de film. Mhm. parce que man affaire bi daf ma film bi daf film bi rek yamoon na fa bu film bi jeexoon rek mënoon nañ dem ñibbi. wallaahi ñi ko ñi ko réalisé ñi am idée yi ñi def démarche bi ñooñu ñëpp équipe bi yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi waaye rawatina Racine ak ki nga xam ne mooy Mbisaan Ndoye nga xam ne def nañ ci liggéey bu am solo ak de Silva. wallaahi wallaahi dama ne bu dee couple ak lu mu doon dama koy delloo waa TFM. mais ñun ñoo ko moom suñu yëf la. mais mais Pape yow da nga wax ne Kouthia def nañ ko lom ngeen ko seen om dala ci biir émission yow rek. Mhm. donc loolu nga xam ne moom nga doon moom nga doon def te mu nekk dëgg ci yow. Mhm. yàlla daal di koy accordé tamponné ko mu daal di nekk mondial. ba ñëpp gis ko. kon dama ne équipe yeewu leen à travers émission yeewu leen à travers euh, euh, rubrique zapping boobu nga xam ne nit ñi dañu doon euh, profité di xool li ñu doon tardé. Uh-huh. dama ne loolu bokk na ci lu gën a produire ay œuvre Kouthia parce que révision bi am ci guddi ki loolu. Eh, doy woon waaye waaw loolu mais laal yokk nag xam nga xam nga xam nga dama koy wax ñun sax mën nañu xëccoo audience mën nañu ne ñun la ñu gën a seetaan mën nañu xëccoo parce que gis nga yeewu leen bi formule bi ñu ci teg bi ñu ko tegee ba tey ci ci heure bi télé yaa ngi jéem a def comme ñun ñu doon làkk tubaab sax ñu ngi jéem a làkk wolof ñu ngi jéem a indi euh, comme ñun lu ñuy indi émission bi ëpp polémique saa yi ñu waxee polémique am donc loolu dañu koy sant yàlla mais yow suñu borom may na la loo xamante ni yàlla na yokku euh, parce que loolu mooy suñu sac loolu mooy suñu ndam saa yu 6 heures jotee da nga ciy gis télé bu bëgg a couper émetteur am lan mooy secret Kouthia secret Kouthia moom mooy euh, fexe ba nit ki seetaan Kouthia ki may toppandoo mu gis ne kii Kouthia toppandoo nit ki ci boppam la ñu indil man des fois su ma toogaatee damay di ko seetaan dangay gis ne dafa mel ne man yàlla dafa may indil kanam gu nit ki dafa am nag loo loxo loxo yàlla la ci dugg. Hmm. parce que lu ñu maquillage maquillage maquillage loxo yàlla dafa mel ne daf ciy dugg ba nga xam ne ki Kouthia di toppandoo da ngay yaakaar ne jëmm ji ci boppam moo taxaw. Hmm. loolu mooy euh, euh, la main divine de Dieu yàlla ci boppam daf ci bokk waaye tamit xarañ biñ ci def ak liggéey biñ ci def parce mënoo yàgg ci dara te doo jëriñu mhm. da nga bokk ci génération yoo xam ne prendre ils ont ils ont ils prendre l'escalier que prendre l'ascenseur il faut prendre l'escalier loolu dama koy wax toujours nit ñi duñ ko comprendre jël escalier moo gën a wóor jël ascenseur mhm. ndax escalier da fekk ay torop torop ci yoon bi ba ngay egg au sommet ascenseur mun nga yéeg léegi egg léegi mais da am càng-càng te boo cangee la temps lu ne mën na ca moo tax euh, yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci télé nga xam nag euh, euh, la euh, surtout l' de monsieur Ndiaga Ndour qui a inspiré l'orchestre 48 heures nga xam ne dans 48 heures ñu rek la ko loolu. mu nekk beneen touche boo xam ne am na solo waaye film yi tamit ki ko xalaat ak ñi ko defar ñoom ñoo ñoom daal ils sont tout vraiment kontaan naa Pape gis naa gars yi ni si jàppee. vraiment TFM Futurs Médias jàpp nañu wane nañ ne am na solo mais yàlla tamit dugal na ci loxo parce que mbir bi daal dafa dépassé li nga xam ne mooy la nature lu dépassé la nature c'est vraiment mystérieux. Elage ba nga demee Màkk ba nga demee Màkk nga ko nga ko ñaanoon euh, da delluwaat Màkk ren euh, boo demee loo nar a ñaan wala yaa ngi répété ñaan yi. li may dellu su ma delloo li ma bëgg def mooy euh, fexe ba ñaan te balaa boobu incha allah yàlla dina ko def Télé Futurs Médias nekk télé mondial boo xam ne day xëccoo audiment wu diggante moom ak CNN diggante moom ak euh, canal euh, canal bu France. canal plus man foofu laay xool léegi parce que li lay wan loolu mooy discours bu Pape Diomaye Faye def nee ba Australie mais Pape Pape déglu li ma lay wax Australie xam nga Australie fu mu nekk Pape. ak sori <laughs> balaa ngay dem Australie da wàcc escale Londres. jugee Londres soog a demaat jël départ mel na da nga jóge Dakar pour <laughs> am na ñu fa nekk di seetaan Kouthia c'est par la magie des médias. nga xam sama xol fees na remercier naa leen parce que loolu dama koy wax benn waaye nee na ma Kouthia euh, yaa ngi euh, wax rek di wax di wax di wax di noonu ko mën na ko si parce que idée bi nga xam ne moom la Pape Cheikh Diallo wax ñun waa yeewu leen ici à yeewu leen ñun de def nañu Kouthia suñu l'homme de l'année mais Pape da nga ko wax altine mardi loolu génn mhm. loolu bu ko nit ñu caaxaanee parce que yéene boobu nga xam ne da ko wax dafa nekk loo xam ne mhm. dafa naturel Pape te mhm. mënoo woon fexe ba xam ne am na ñeneen ñu koy xalaat parce que fanaanoo ak xamoo luñ doon luñ doon luñ doon par la magie de Dieu yàlla xëy na moo la wax loolu sa làmmiñ bu barke moo tax man leen làmmiñ bu barkeel dafa am solo yéen ñi fa toog ñoom ñëpp nag maa ngi remercier sama ex jabar bi nga xam ne moo toog foofu di euh, Kia newoon naa ko ne na ci jàpp balaa parce que tey bu fa nekkoon tey moo waroon toog moo yoon di xaay tey moom mu ngi laaj comp ca fajar ba tey de ana compam waaye yow man la man la euh, xanaa aqu tas ana aqu tasam tas aqu sëy yow man la moom daal xabaral la Pape dinaa la jox benn budget nga séddale la ko mais moom na mujjee na mujjee jot. jeex na <laughs> jërëjëf jërëjëf Sine. waaw <laughs> jërëjëf Kouthia kontaan nañu tey lan mooy nekk mënewu Kouthia Show bu 6 heures jotee. Euh, Pape xam nga fu mu ne ni film bi dafa doyul. Hmm. Euh, dañ koy daggaat rek gis nga na ngeen teg ko léegi dañ koy daggaat après mu daal di ñëw def ci ay quelques remerciements. ok mais incha allah suba bu Sénégal gagné euh, bu gagné Algérie par euh, deux buts à un. incha allah incha allah dinañu wane après juste parce que Sénégal c'est zone football. Mhm. bu fubalee ba pare ñu daal ñëw nag ak sur le plateau en temps réel mais ci kanam maa ñëw liggéey ci léegi parce que damay bañ ñu ne dama daw. Mhm. mais nañu jàpp ne tey dana neex ko dana neex na. waaw incha allah gërëm naa leen sant naa leen yàlla yàlla defal jàmm yeewu leen yàlla ñëpp yeew ñëpp ñu fa nekk yalla yàlla defal jàmm parce vraiment euh, xaalis bi bëriwul mais amoon naa yéen a jox la ci 10 pour cent <laughs> mais yàlla dafa def Kouthia jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax donc 6 heures di ngeen àndandoo ak moom ci euh, Kouthia Show nee na grand boubou bi mu soloon keroog parce que ci doon def comp yi daf ko yóbbu ci benn société d'assurance mm-hmm. quelle inspiration ñu assuré grand boubou ñu sàcc ko <laughs> jërëjëf Kouthia ñu ngi gërëm bu baax